ay murit lañu yoo xam ne sëñ Touba rek lañu yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ lañu ko def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Sidi Mbakke xalifatu Cheikh Abdoul Ahad ñu ngi yëkkatu kàddu yu nuyoo yu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ Touba tey ci kaw suuf ñuy ñaan suñu borom bàyyi fi lu yàgg lool tam ànd ak wér yi nga xam ne am na ko ci liggéey lislaam suñu borom mottali ko ci jàmm mu lay nuyu bu baax a baax di la sant di la gërëm ci sa digg moom ndax yàlla da leen a boole démb boolewaat leen tey di waajal liggéeyam Serigne Touba mu lay sant nag di seere ci yow li nga xam ne xam na ko ndax ku la xam ku ne xam ne na sa kilifa gu baax ga Cheikh Abdoul meloon tànk yooyu la la yàlla melal ci jikko mooy ci dëggu ak yor wenn melukaan akuk taalibe ak bëgg sëriñ Touba moo tax kerew ba fi sëriñ Saliou Mbacke bàyyi ko ca guddi nga dem ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yee salaat seen jébbal ci moom ne duma fanaano te amub sëriñ kon ku ne xam ne sab dayub taalibe bi mu fi bàyyi ko itam ak Cheikh Sidil Muxtaar nga defaat noonu ci kanamam yee salaat sa digg moom mu dénk la lu bari nga rafetal lépp ba naa ci seere keraw bis bi ma ko mujjee gis ci laa ko mujj gise nga yóbbat fa Abdoulahat Ka mu indi addee tool yi mu yéemu ko lool sant la gërëm la yeesal sa digg moom seere sa pëstéef keroog laa ko mujj gis gisaatuma ko keroog ba fi bàyyi biñ ko taxawoo ba nopp yaa jëkke yëkkati say loxo jaayanteeg Cheikh mu Moutakha ne ko jébbal naa la sama bopp kon ku ne xam na ne ku fi nekk Serigne Touba ku ne jox nga ko lépp li nga am kon nag seen diggante woowu yàlla na yàgg lool yàlla def itam maam tuuti lu ma ci xam loo mën a seere ndax Cheikh mu Moutakha yónnee na ma ci yow wax ma ne ma naa la xamal ne foo ko Cheikh Sidou Muxtaar féete woon fa mu ko féetale woon foofu la la féetale ginnaaw bu yeesale yeesalee mboolem li nga xam ne sëriñ bi dénkoon na ko da caa dolliwaat def la ngay jëwriñam ci yoon wi lépp lu muy def fas ci yéene diisoog yow wax ceeg yow wax ma ne ma moom de li ma ko gën a jàppe ndax naka jekk dama daa wax naan ki ma gën ci nit ñi mooy ki jikkoom wér yàlla def na ko ci moom nag jikkoom wér la lu mu rek moo na ci moom ba ma dikkee ba cee wax la ko nga wax ma ne ma danaa ko xamal ne ko ñëwal nga sa bopp ba ci sa wax ko ko parce que yée parce ah, que na maa yéene ànd ak yow topp ci sa ginnaaw jàppale ci liggéey Serigne Touba te duma la ñoru mukk kon yéen ñaar seen ànd bi yàlla na ko yàlla yàggal dalal na xelum nit ñi dalal na xelum taalibe bi yëpp kon la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké seere woon ci diggam ak Sëriñ Xaadir la yàlla def ci seen diggante dafa waxoon ne ñun ñaar ba ñu yàlla di boole dafa dàq seytaane ba noppi kon yàlla yàgg lool ba li mu bëgg a liggéey Sëriñ ndax moom ku ne xam ne ne amul beneen yitte liggéey sëriñ Touba rek ko ñor lépp mi itam jébbal na ko sëriñ Touba fas yéene wut gestu lenn lu may liggéey sëriñ Touba kon nag liggéey boobu yàlla ngeen ko yàgg yàgg ànd te day ceeg ngërëmu sëriñ Touba kon bala ñoo dugg ci biir seere yi ay seere rek la ñuy wax ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew tàmbalee ko ci sëriñ Abdul Fattah mu Cheikh Mamadou Fadel ndax dana ci sànni ay kaddu ndax diggam ak Cheikh Abdoul Ahad ñëpp xam nañ ko. sëriñ Cheikh Mbackeem Cheikh Abdou Khadir mi ngi fi ak rakkam sëriñ Moustapha moom itam dana seere ci Cheikh Abdoul Ahad ndax ñëpp xam ngeen lim xam ci Cheikh Abdoul Ahad ndax Cheikh Abdou Khadir moom la doxaloon seen diggante kon xam na ci moom lu mat seere kon tuuti rek lay indi ci jataay bi ci ay kàddu bàyyi leen ñoom ñu seere ci wax ji kon fi ñu tàmbalee mooy sant yàlla bu baax di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo fi teewal président de la république Macky Sall te ci ko jiite di ministère environnement maam Thierno Dieng te ñëpp xam lim doon ci kër gi. di ko yóbbanteem nuyoo ak cant ak ngërëm ci président ci turu sëriñ bi xam naa sëriñ Mahmoudan mi wax ci turu sëriñ bi dana ci ñëw waaye liñ ci seere rek. ci diggam ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëpp xam nañ ko ndax ak cofeelam ci diggam ak moom ñëpp xam nañ ko kooko joxob cërit la te mën naa ci seere ndax yàggut sëriñ bi yónni na ba ci moom yitte joo xam ne yitte réew mi la du yitte boppam ndax moom na kilifaam yi daan doxee rek lu ñu war a wax rek danañ ko dox ci biir ba ñëpp muy njariñu nit ñi waaye njariñul boppam du ko def keroog ba ma fa yónnee itam ba ma àggee ba wax ko yitte ja mu lu soxal ñëpp damaa wax ne ma bala ma def benn jéego danaa ko lijjanti ba noppi lijjanti ko ba loolu féete kon loolu bu ko dee def ngir Serigne kon moom mi fi Serigne Touba war na ko seere ñëpp maase ci xam ne jox na ko cër ba mu ko war a jox sédd na ko dama ko war a sédd kon mi ngi koy ñaanal nam ko ko waxoon mu dégg yàlla suñu borom dimbale ko kattanal ko ba naal yi nga xam ne am na ko ci réew mi ak li nga xam ne bëgg na ko def ci Touba suñu borom dimbale ko mu àggale ko na koy jortam di nuyu sëriñ ab Samad mu Serigne Souhaïbou ndax bu ñu xasee tudd Serigne Siid rek ñëpp tàbb nañ ci biir ndax yoon wi noonu la baaxoo boo xasee ba lim rek da ngay juum moo tax maa ngi jégalu ci lim bi. di sant yàlla bu baax ci bi ñu booleeg Serigne ndax ñun waru ñëw puukarewoo dara lu may nekk taalibi Serigne Touba ndax Serigne Touba fàggal nañu lépp lu mat a fàggu ndax li am solo nag mooy ñu xam ne la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax ne koo xam ne boo gënee adduna ñëpp xam ko. boo génnee àdduna ñëpp xam ko diggante bi mënoo fee def lu ump nit ñi benn nag ñu biral ko walla ñu yol ko kon nag li am solo rek mooy fexe ba góor góorlu sax ci ndigali yàlla yi ak ndigalu Serigne Touba yi la mu waxoon na itam ne in tansurullaha yansurkum mooy sàkkal yàlla aw lay Serigne Touba itam liñ ko mën a dimbalee rek Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi dafa waxoon ne Serigne Touba de lim ma defal dafa rëy lool ba xawma dara lu ma koy sant lépp lu ma nar yëkkati nag lu mu rëy rëy ba bokk ko sant ma xool ko lépp di yëfam ma ne naa daw dàkku ci ak bëggam dàkku ko ci bëggam nag mooy in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kon nag nañu góor bu baax a baax te xam ne li am solo rek mooy lam waxoon mooy nekk ci dëgg wéet ci ak wéetali ko ci ñoo war a ndax la jur rek mooy li am solo dañ xam ne doomu aadama ñu ko suñ borom binde kenn mënta fexe ba gërëm loo leen ren naa si xaayatun laa tudd rek moom mii di Cheikh Abdoul Ahad nag suñ borom dafa defoon ci mu xikma ci kor gi fi mujje fekke waxtaan wa dafa yéemu lool daj àdduna ak àllaaxira am ci njaboot ki ñëw di ko yéem ñu ngi ci jataay bi mu ne nit ñi di yéemu nañ ci sama wax ju lool moo ne wax nañ ne di diwoo ma jàngal moom ma moom ñu ko jàngal de yéem na wax ji ndax xam nañ lii du liis mën a jàng ci téere ko waaye xam nga li gën a wóor mooy laa ilma lana illa ma alamtana kon yuuti l xikmata man yacha wa man yuuta al xikmata faqad uutiya xeyran kasiran te al xikmatu dalatul moo tax am na benn boroom xam-xam bu màgg bu waxoon ay tomb yu am solo yoo xam ne jataay bii waris na ko ci fàttaliku ndax jataay yii du jataayu puukare du jataayu taggante du jataayu raggalante ginnaaw jataay la boo xam ne dañoo woo nit ñi ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ak fàttaliku Cheikh Abdoul Ahad ak li Serigne Touba waxoon ci moom kon na ku fi jóge ku ne war ngaa fexe ba jëli fi loo yóbbuloo boroom xam-xam ba dafa waxoon ne nit ñi ànduñoo seeni xel dañoo topp seen bakkan ndax liñ bëgg rek lañ xam waxaat ne itam nit ñi de loo mën a def ci lu baax ak lu mën a doon danañ jàpp ne dafa am sa njariñul bopp làqu ci ginnaaw waxaat ne it ne saa soo su la yàlla dimbalee ba nga am li nga doon bëgg ci àdduna da nga am ay xarit yoo xam ne ànduñu ak yow ngir yàlla waaye danga am ay noon yu dëgg yu taxaw ngir jàmmarloog yow waxaatit ne nit ñi waxaatitam ne nit ñi lépp looy def loo leen defal ci lu baax ak lu mu bari bari saa suñu xëyee mën nañ koo fàtte waxaat itam ne nit ñi booy ànd ñoom nanga ànd ñoom ci dëggu nee na saa su la yàlla defee ngay nit ku dëggu koo xam ne loo wax rek ngir yàlla tax waxtu nekk nit ñi danañ la waaye nag looy wax na yàlla di tax ndax loolu mooy lay mujj waxaat itam ne li ngay xëy def ci lu baax li ngay dépassé lu mu bari bari bari saa soo xëyee boo ko defut dañ ko fàtte nee itam li nga dépassé ci sa alal tabax ko ci àdduna ay ati at ci génn guddi walla benn bi mën naa xëy mabbu kon kuy jëfandikoo nit ñi na nga bàyyi xel loolu mu ne nit ñi itam ku bëgg ku néew doole lañu waaye boo dara desul lu may topp ki ki am kàttan la ñu topp mu ne itam nit ñi loo leen lebal ci lu baax lu mu bari bari doonte dangaa fab li nga am lépp jox leen ko it amaana ñu fayala safaan ba doonte lu baax nga leen lebal mu wax ne nit ñi loo leen mën a defal dee ko def ngir yàlla ndax amaana ña ngay dimbale buñ dimee bay attaqué wala ñu song yow la njëkkee song kon lépp lu nit def rek na ko def ngir yàlla kon nag fi may jeexale rek mooy fàttali bu baax la Sëriñ waxoon ci waxoon ne nañ yar ndaw ñi te jàngal leen ndax loolu mooy tax ñu am defarug adduna ak alaaxira da koo tënkoon itam wax ne ndaw li toll ci li weesoogu juróom-ñaari at lépp loo ko def lu may buur danga sonal sa bopp ndax buur rek la mën a doon bu weesoo juróom-ñaari at ba am ñeent fukki at diggante bi képp ku ko ci def buur buur dana dal ci sa kaw bu weesoo ñeent fukki at nag ba muy génn àdduna bu defee boppam buur dana dajeeg yàlla borom bi ko bind kon nag na góor góorlu te gën a farlu ci ndenkaane Serigne Touba yi te xam ne yoon wi Serigne Touba ñag na ko aar na ko waxoon na ne yoon wi ñag naa ko ba dara mënu koo bët waaye nag li koy róor ci biir lay juddoo kon nañ bàyyi xel ca la mu waxoon te sëriñ bi mas ko fàttali dafa waxoon ne ak bëgg akuk ragal akuk yaakaar akuk jaamu bu leen ko defal ku dul yàlla ndax àdduna mi loo fi gën a bëgg te du yàlla loolu dana ko nekk sa yàlla nga di ko jaamu te doo ko sañ a bañ te buur boo mën a jaamu te du yàlla nag da nga bëgg ci moom bis dara mu lottu ca dikk fa saaboroom di ko fa diis boobaa yéen nañ fa fekk kon nag nañ xam ne. la sëriñ Tuubaa digaloon sëriñ Matar Samba Diop ba koy booleeg ak Cheikh Ibrahima Faty nee boo demee na nekk ab ñagam am ñag nag day gën a ñagas la muy ñag kon ñun le Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax rek nit bu jaayee daal te yaakaaru jot ci njëgge lam jaay moomatu ko jaay nañ suñu alal jaay suñu bakkan jaay suñu jëm kon moomatuñ ko Sëriñ Tuubaa kon nañu Sëriñ Tuubaa gënal suñ jëmm nañu Sëriñ Tuubaa gënal suñu alal nañu Sëriñ Tuubaa gënal suñu der kon na ñëpp maasa ci gën a feex ba gën aar yoon wi te lépp loon na dara naa na dara ci jigéem Sëriñ Tuubaa Sëriñ aar na boppam waaye nañu ko suñ suñu bakkan gënal ndax Sëriñ Tuubaa lañ yaakaar adduna yaakaar ko alaaxira te fàggul nañu lépp lépp luñ gis ci adduna ci teraanga rek moo ñu ko defal ndax waxoon na ne defal naa leen loo xam ne buur du leen dàq lu muy lekk buur du leen dàq lu muy sol buur du leen dàq fu ñu tëdd te kuy rëbb buur tegg leen kon nag la mu waxoon rek ne naajaaniyal mukramu bi tanzili wa zahzahal xulaata bi tanzili kon képp ku bañ Sëriñ Tuubaa rek suñ borom dana la ber dana la alak wax ne li man lahu kulliyati ibada hamdi wa man xaalafa ni abada sama lépp ak jaamu yàlla la képp ku wuteeg man tam suñu borom tax la alak kon nañ xam ne képp ku jug ngir jéem a ŋàññi Serigne Touba sa bopp koy def ndax Serigne Touba mbiram nee na fang jantu joor lor la kenn mënatu ko fay kon nag képp ku koy jéem a defee du la weesu waaye nag la ca suñu waru teef nag ñun mooy takku te jël suñ lépp jëbal ko Serigne Touba te buñ nongoote kenn kuy wax Serigne Touba lu ñaaw wala ngay jël lenn lu ko jëme ci Serigne Touba ndax Serigne Touba.